maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di tàmbali nuyoo bi wax suñu waajur monsieur Mbow di ko nuyu di ko sàggal di ko jox wàccuwaayam di nuyu également le représentant du maire de la Padoa di nuyu également les représentants du ministre du tourisme et des transports aériens soo chef de cabinet monsieur Diouf mais surtout di ki ko ki mu àndal muy Ablaye Gueye bokk ak moom buur di sama xarit di également le représentant du de l'emploi le directeur de l'emploi teewal ko fii par l'intermédiaire de monsieur Sakho di nuyu monsieur Diouf di nuyu également monsieur Mbaye Niang le président du réseau des jeunes leaders et moi je dirais tout simplement des leaders di nuyu la presse di nuyu tous les invités ici présents di wax ni bi may ñëw fii damaa woon problème ban casquette laa fi indi ndax bi ñuy lancé invitation bi sama xarit Bamba moo invité woon xaritam Mbaye Sy Ndiaye Bamba ñu xamante woon dans le cadre de la lutte boobu maa ngi woon président bu Thiès ñu xamante si làmb seet lu rafet si groupe làmb Ousmane ñi fekke na ko si condition yi ñu xamante boobu ba tey mu koy rafetal di dox lu mat sëkk pour que diggante yi gën a ratax si diggante bi si la arrêté génne nous nommé le premier vice-président chargé de la lutte avec force du CNG de lutte. ma ni bu ma fa demee soo moytuwul sama casquette xarit laa koy yóbbu parce que je crois que boobu gën a fort je crois que boobu dara mënu ko dindi et c'est ça pour l'infini. donc Bamba jàppal ni tey sa xarit boo fi nekk muy Mbaye Ndiaye et c'est l'occasion de rassurer suñu papa. daf ni dénk nañu Bàmba mais daf fekkoon ñu ñu téye Bàmba kon nit ko dénk dañ koy booleeg ni ñu ko téye woon gën ko war a mën a téye au passage ñuy nuyu sama papa sama xarit sama confident Chérif Diaw muy le président du CDG de Mbour acte bu ma posé maag moom la ñoo ñoo si ànd pourquoi je suis là nag c'est pas un problème bi ma concerné à plusieurs niveaux d'abord parce que si mbir mi intervenir muy làmb beneen bi par rapport à ma situation géographique muy fi ma dëkk muy la Petite Côte ñaari secteurs yooyu yëpp buñ naan ñi dem si mbëkk bi ñan ñoo si ëpp si ñaari secteur boobu lañ jógee muy napp gi muy mbëkk gi donc forcément thème mel nii foog mu concerné ma mais surtout may joxe benn anecdote boo xam ni ba tey maa ngi soufflé di noyyiwaat parce que expérience bu douloureuse laa dund dafa am benn mbër mu ñàkkoon waajuram bu góor bu dëkk Jolwaar ñu waroon dem pour jaale ko boo dawalee oto ba jifiir da taxaw jël gaal nga def traversé quarante cinq minutes dama ni quarante cinq minutes kese laa def si géej gi façon tari saa bu nekk naa façon ñaan yàlla bu nekk ñaan naa ko yàlla pour que ñu mën a teer may imaginer nag ñiy mbëkk war a def il paraît cinq jours six jours sept quinze jours si ndox bi je me demande dans quelle condition la ñuy donc rien que loolu rek man jàpp naa ñuy tukki dañuy xam et puisque en bonne partie ay croyants lañ kon jàpp naa ni li ñuy def xaw na te xaw baaxul tegal nañ donc rien que message boobu rek war nañ ko mën a jàllale par rapport à la jeunesse war nañ ko mën a jàllale par rapport ñuy tukki war nañ ni leen bu dee gëm nañ li ñuy doon bu dee ñun euh, diine bi ñuy woote mu ngi si ñun war nañ ko mën a teg suuf wut beneen pexe tekki bu dul mbëkk mi surtout que les exemples sont là ñun ñu wax nañ ko aussi ci kat bëgg na ñoo xam ne fii lañ tuddee màggee yaroo bi fii lañ tekkee ba si la ñuy soog a jël avion pour dem soit pour des vacances wala wuti pour indiwaat au Sénégal. donc vraiment message boobu laa amoon pour lancer ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter une fois de Bamba di féliciter également waa association FILS di leen jox rendez-vous le 19 incha allah à Mbour. au moins la nii on va continuer le travail foofu tamit.